À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. jërëjëf doxalal. jërëjëf comme ni nga koy defee saa ci waxtu wi ci seen horoscope ci kàllaamay wolof tey nag euh, yemboog mercredi 8 mai 2019 ñu koy dooree ci bélier yi bélier yi ñoom xam nga par Jean ñoo juddu diggante 21 mars jàpp 20 avril nee na ñoom tey dina am ay événements. Euh, yoo xam ne mbetteel lay doon wax dëgg yàlla waaye nag day changer habitude seen vie couple maanaam bu fekkee ne ñi ngi am ñi ñu bëgganteel daf ci changer ci wàllu célibataire yi nag mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne conquête yi nga xam ne xalaat nañ pour am ko nekk na loo xam ne incha allah rabbi yàlla mën na si hmm. jàppale ba ñu tombé ci ay surprise yu am solo euh, ci wàllu santé bi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, am na ci ay sujets yoo xam ne vraiment day buñ ko waxee stress daf ciy feeñ mais ci biir loolu bu ñu xoolee tuddi nee na nañu jëm a accorder tuuti temps may ko temps pour ñu mën a yegg ca ñu jëm ci wàllu professionnel mu ne c'est moment pour nga mun a tegaat doon lool ci say affaire parce que dafay bëri ay jafe-jafe ak ay gàllankoor yoo xam ne yaa ngi doon jànkoonte ak moom mais leen indiw koon lu dul désordonné donc kon bélier yi na ngeen bàyyi xel ci loolu Pape ñu jàll ci euh, ña nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi tóore yi ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne ñoo judd 21 avril jàpp 20 mai waaw ñoom ñoo ci judd mu ne euh, ñoom sur le plan euh, sentimental ñu ne dañuy nekk nit ñi nga xam ne ni nañu faral di jox nopp ki nga xam ne ñu ngi bëggante ak moom loolu dafay nekk li nga xam ne dañuy wane seen cofeel ak seen bëggeel ci ka nga xam ne ña ngi nekk moom bu dee nag dañuy dund ñoom kese loolu nag doon na loo xam ne wax dëgg neex yàlla baaxul il faudra ñu jéem a xool koo xam ne daf la ñuy jege nekk ci seen wet pour ñu mun di euh, nekk ak moom ci wàllu santé ñoom ci seen jëm bopp dañuy nekk ñoo xam ne muy tóoro yi nañu moytu ci lépp loo xam ne jëm na ci gaspillage d'énergie maanaam euh, di bouger lu bëri wala am euh, yëngu-yëngu yu yu bëri waaw day indi jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram ci wàllu professionnel nag ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne nee nañ bu leen rate tey occasion pour ngeen mun a wane seen bopp ñu dem ci jumeaux yi pap jumeaux yi ñoo juddu 21 juin Euh, diggante 21 juin jàpp 20 21 euh, mai jàpp 21 juin mu ne ñoom ci wàllu wii sentimental dañu nekk ni ñi nga xam ne noppi la ñuy def loolu nag communication la gars mais bu difficile la surtout ci wàllu wi sentimental waaw parce que boo leen nii bëgganteeg nit ba pare di noppi moom affaire bi da koy jaax faut extérioriser la chose voilà loolu loolu loolu loolu loolu loolu waaw loolu loolu loolu loolu ah. doxul doxul donc loolu waaw moom koy kéemtaan la donc nañ si bàyyi xel bu baax a baax mu ne ci wàllu santé bi ñoom dañ nekk ñi nga xam ne euh, waaw tey dañuy soxla massage bu am solo ah, waaw tey moom zomo yi naa ngi ñëw si waaw non fii bàyyi leen weeru koor bi du du du prison après ndogu après ndogu rek. prison la rek nañ leen maase maase wul ji leen. waaw bu ñu ndogoo ba pare rek. voilà léegi après après de toute façon euh, l'islam moom ak xanaan dégg-dégg la rek ku nekk ak ni nga koy déggee voilà maase jiwu leen yéen jumeaux yi donc bu ñu jógee ci la sur le plan professionnel aussi mu ne euh, dina ay contrat yu bees yoo xam ne vraiment mun nañ leen ko proposer euh, pour ngeen mun si yëngu loolu dafay nekk li nga xam ne luy baax lay doon ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi Papa cancer yi mu ne ñoom ñoo judd diggante 22 juin jàpp 23 juillet mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne seen xel dem na ci am changement parce que dafay am li ñuy wax monotonie maanaam tout le temps ñu doon nekk ci benn mbir moo xam ne rek day dem ba day xaw a soof tuuti moo tax ci biir loolu dañu changer lu bees pour mun ci dem ci wàllu wi euh, sentimental ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy célibataires yi nañu moytu déception yaakaar bu tas boo xam ne dina leen dal ci seen vie sentimentale ci wàllu santé bi ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne mun nañ nekk am forme tey jii ndax li war a loolu mooy euh, coono gi nga xam ne mi ngi leen doon dal jamono yee ci dina nekk li nga xam ne luy ñëw jeex lay doon ci wàllu travail nag ñoom dañuy nekk ni nga xam ne muy cancer yi war nañ changer ni nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee parce que xel ñaar yi nga xam ne ñu ngi koy commencé dem muy dut yooyu nekk li nga xam ne lu baax lay doon ci ñoom ñu dem ci lion yi lion ñoo judd diggante 24 juillet jàpp 23 août aal waaw mu ne ñi lion yi ñi nga xam ne ñooy célibataires yi comme yow àll am nga soxna célibataires yi moom ñoom nee nañ début bi nga euh, dañu nekk fi mu nekk nii wala jël nag décision bu am solo bu définitif ci seen wii sentimental lambar lambar gi bëri na taxawaalu gi bëri na di génn fu ne nga fay dem bëri na léegi nag takk leen yéen waaw point yéen lion yi takk leen jeex na santé ñu lay point mu ne nekk ni ñi nga xam ne Euh, ils sont pas à l'abri du stress donc kon il faudra ñu jéem a xoolaat nan la ñuy def ba mun a delloo seen xel xool ni ñu koy liggante ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne euh, il faudra ñu xam gën a suubul parce que nit même boo leen di liggéey ci ci groupe bu ñu la waxee aussi del faral di déglu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi nag ñoom euh, par exemple vierge yi ñoom ñoo judd diggante 23 août jàpp 23 c'est 24 août jàpp 23 septembre mu ne ñoom it ngi ñëwaat ci célibataires yi seen vie amoureuse bi nga xam ne da koy nekk nii mi ngi ci seen loxo de. Mhm. waaye nag moytu leen mu rëcc leen. kon nag taxaw leen si bu baax a baax ngeen jéem a euh, relation yi nga xam ne am ngeen ko ndax ki ngeen di bëgganteel wax dëgg yàlla jox na leen bopp kon taxaw leen ci bu baax a baax. mooy ñoom Magui Coulibaly. ah ñoom Magui fa lañ. waaw borom teraanga am ku muy bëgganteel ay ñoom Tif ak ñeneen ñeneen bu bu dee daa am ku muy bëgganteel na ko takk santé mu ne ñoom dañu nekk ni nga xam ne euh, dafay am air de crise mine boo xam ne daf siy nekk c' est normal xam nga des fois da ngay yeewu sa yaram. Ah, waaw waaw ndege ndege des jours sans comme on wala voilà hmm. voilà ça donc sur le plan professionnel. comme moi je suis pas en ah ça voilà. yow de en forme fu ñu jëm. <laughs> ay mooy te leen voilà mu ne sur le plan professionnel xam nga tey vierge yu ay dañuy def ay gaaf c'est des gaffeurs ah bon waaw waay dañuy ay def ay gaaf donc moo tax ci biir loolu il faudra ñu jéem a xool ñi nga xam ne ba pare ñu bañ a am distraction bu bu bëree bëree bëri ñi nga xam ne ñoom ñooy balance yi mooy huit si ñu mujj yi nag euh, ñoom dañuy dem ci euh, situation amoureuse boo xam ne Euh, ñoom ñoo juddu 24 octobre waaw donc kon kooku dañ ciy bàyyi xel bu baax a wax euh, ci wàllu euh, amuñ mu ne ñoom dañ nekk ñoom situation amoureuse bi nga xam ne dañ koy dund fi mu nekk nii dafa nekk situation boo xam ne wéetaay la wéetaay baaxul nit da ngay am ñooy nekkal waaye di dund yow kese baaxul loolu dund boobu dund dund. mauvais pour la santé waaw baaxul voilà déjà mauvais pour la santé parce que mi ngi nii nee na dañuy stressé ci santé c'est normal. yow kese stress daf ci biir loolu nee na méthode yi nga xam ne ñu ngi koy def xanaa jéem a lekk chocolat ak a neex. jéemee xanaa eh, mais anti bu garaaw la. chocolat chocolat anti stress bu garaaw. dogu dogu dogu man moom dinaa waaw waaw waaw <laughs> mu ne bu jógee ci loolu. su ma amee du leen may. ok ci wàllu professionnel nga mel léegi <laughs> changé na de doxalal. mu ne sur le plan professionnel euh, ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, franchement dañuy jàll ci benn situation bu un peu compliquée quand par rapport ak euh, seen mbir loolu dafay nekk loo xam ne jafe-jafe daf si am par exemple ñu dem ci scorpion yi mu ne ñoom. Euh, scorpion xam nga ñoo juddu diggante 24 octobre jàpp 22 novembre mu ne ñoom sur le plan sentimental ci wàllu euh, <laughs> couple daa neex de fi mu ne ni xumbuta dagan la def traversé situation yi ñu doon traversé jamono yi ci gannaaw jeex na fi ne ni moom ñi ngi commencé di nekk ci yoon yu baax jaari ndaari jaari ñëw nañ dëkk nañ jam ñaajo dem Thiès jaat ñoom dem Mbour jaat ñoom célibataires yi ñoom dara doxul ci ñoom parce que dañuy jëm a jaay muus moo tax it ay déception lañ jëlee mu ne ci wàllu santé ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne euh, il jéem a xool régler seen vie seen wàllu alimentation seen wàllu lekkin comme li li li Mayte doon wax léegi il faut ñu xoolaat seen alimentation xool li ñu lekk équilibré voilà di lekk juróomi fruit pomme banane orange euh, ak yooyu di lekk supame carotte ñambi ak yooyu donc loolu dafay nekk loo mooy cinq fruits cinq cinq légumes baax na voilà sur le plan professionnel mun na ñoom dañu nekk ñi ñi nga xam ne euh, vraiment am nañ ay reproches yu ñuy def mais nañ ko jël positivement mi ngi noonu euh, sagittaire yi mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne ñoo judd 23 novembre jàpp 20 décembre euh, lëndëm lëndëm bi amoon ci seen ki ñuy bëgganteel ñu ngi commencé di gis kanam bu bees bi c'est normal jigéen dafa lëndëm chaque jour nga gis ci moom jikko bu bees. mu ne waaw non waxuma ko. Mm-hmm. ñoom kii moo ko wax mu ne jigéen dafa lëndëm chaque jour nga gis ci moom. jikko bu bees léegi nag attitude bi nga xam ne amoon nga ko visa bi ak ñoom comme ñoom génn nañ jikko bu bees yow it génnal jikko bu bees santé. na positif rek. ah ça dépend ci ku jigéen ki. on apprend de ses erreurs dañuy gàjje de. ñoom it ñu nit ñuy kurpeñante <laughs> loolu affaire loolu kese la ci wàllu santé mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne nañu moytu ay rage de dents. wala ay ak bon méttitu bopp ah non loolu musiba la te li ci gën a bon nag bu tabaski desee ñetti fan lay ñëw. te baaxul léegi loolu dafa nekk loo xam ne doy waar la donc nañ nañ nañ nañ ci bàyyi xel baax a baax sur le plan professionnel euh, ci sanitaire yi mu ne ñoom dañu nekk nii nga xam ne dañu xaw a yambar nonchalant ah, ah nooy hmm. yambar du ñu imposé wu daal du ñu imposé wu kon déjà loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ñu ñëw ci signe mujj yi muy capricorne Papa Zan capricorne ñoo judd diggante 21 décembre jàpp 20 janvier mu ne ñoom ci wàllu amour ñoom dañu nekk nii nga xam ne jarul ñuy bàyyandiku nañ bàyyi tempête bi jàll ci seen vie de couple pour ñu mën a recisoire mën a départ départ bu bees ña nga xam ne ñoom ñooy célibataire yi nag nee na ñoom dañoo bëri wax lay làmmeñ ratatat la ñuy wax dara amu ci ah mais dara am waaw ratatat dara moo tax dèjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ci wàllu santé ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ñooy capricorne yi mu ne seen santé wax dëgg yàlla am nañ formé mais fan yi seen yaram taxu koo neex noonu naa nag climat bi moo ko war a ëral ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne euh, wax dëgg neex yàlla travail équipe baax na ci ñoom parce que daf leen permettre ñu gën a mën a euh, mën a mun a am li ñu bëgg mhm. ñu dem ci avancé ñu mujj yi verso ñoom verso yi xam nga Papa Jean euh, yi ñoom ci wàllu wi sentimental seen ki nga xam ne dañuy bëgganteeg ñoom xam nga ñoom ñoo judd diggante 21 janvier jàpp 19 février verseau yi léegi ki nga xam ne dañuy bëgganteeg ñoom seen conjoint waxuñu ñu jigéen ñi de jointe de joint lañ wax conjoint joint mu ne dina def tout pour épauler leen. na moo bi mët. man na xam mooy dañuy naan joint jointe. bii nag conjoint la ñu wax joint waxuñu jointe mu ne joint yi. amul entre parenthèses déedéet conjoint mu ne na leen jàppale épauler leen dimbale leen parce que ñoom dañ nekk ni ñi nga xam ne jointe yi fi nekk nii xamuñu fi ñuy teg seen tànk. kon joint yi conjoint ah. nañ jàppale conjointe yi waaw ba tey benn la rek voilà ah, côté santé mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne mode de bi ñu am ni actuellement senn na genn xeetu senn goo xam ne buñ ci topp da loolu dafay nekk li nga xam ne daf si daf si def si daf si si am donc déjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne ci wàllu santé ah wàllu santé mhm. ah, euh, déedéet santé wër gi yaram mhm. wër gi yaram nee na euh, déedéet moo déggal ma ni santé damay wàcc mbëbëx <laughs> travail. baal ma suñu waaw damay suñu maa ngi la koy boros non dama kii c'est que euh, Kader technicien bi fi nekk moo ma envoyé ma mu ne dafa am bu embouteillage bu garaaw bu nekk ci Yoff bi pour gars yi bu ñu ko mënee éviter aussi. looloo tax quoi donc waaw trafic trafic noonu embouteillage bu dooy waar. Kader si boobu mu ngi indi embouteillage fii ci sa horoscope bi. nekkoon ci kanam indi embouteillage dem na ñu jëm ci travail mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne dinañ gérer seen temps à cause de rendez-vous professionnel yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy am. Kader sikk na loolu ñuy jàppale waaw wax na dëgg ñu dem nag ci bu mujj bi 57. Uh-huh. ok muy poisson yi. jën mooy poisson yi. waaw poisson yi jeex na ñoom ñoo judd 20 février jàpp 20 mu ne sur le plan Euh, sentimentale ñoom dañoo nekk ni nga xam ne seen vie de couple bokkul ak seen vie de travail mënul nekk dañ ko xoolaat bu baax léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy célibataires yi déception moom dañ koy am dañuy découragé oh. li ko waral dañ doon jéem a jaay xel bu mag ñu dajee ku leen ëpp xel oh. donc dañuy lem fusion boobu du baax du baax naxante waaw xam nga nitu safara ak nitu ndox mun ñoo ànd dañ doon niitu ba lakkale dañ doon niitu ba lakkale safara ak ndox du ñu ànd ndox day fay safara mbaa safara ngeeral ngeeral donc ñoom tey célibataires yi c'est compliqué santé ñoom dañ nekk <laughs> dinañ am moral en baisse c'est normal mu ne ah ku ku lakkale gañ moral sa moral day wàcc seen moral day wàcc donc déjà loolu nañ xam ne moral day wàcce ñu muñ ba suba ci santé ci professionnel ñu ne ñoom dañ dekk ñi nga xam ne amuñu souci à se tey ci journée bi dafa nekk journée boo xam ne bu baax lay doon comme waxtu wi nga xam ne dañ ma ko mayoon ma naa terminer avant cinquante huit cinquante na delloon naa la léegi c'est que euh, Seydina yow dañuy wax ak yow in petto nga jottali bi ça veut dire que bàmmeelu biir foog nga am comme ni ko laari waxee doy nga waar ah? ku doy waar nga kàttanu yàlla maa ngi jégalu waaw tu dois avoir quoi un cimetière même maa nañu war a tënn émission léegi qu'est-ce que ça d'extraordinaire